le premier ministre Hadjibou Soumaré nekk suma kilifa donte maay giite coalition bi te li ma giite coalition bi ñoom ñoo ma ko teg parce que ku ci bëggoon giite ku nekk dama lay bàyyi nga giite coalition bi parce que ñoo ma mag ëpp ma expérience jàngal ma liggéey pour la plupart waaye dafa fekk ne dañu nekk ay mag yoo xam ne ay référence lañu ndaxte Hadjibou mii bi may démissionné ci gouvernement Macky Sall nekk ministre du commerce et de l' industrie il président la commission de l'union économique booba daf ma woo téléphone depuis Ouagadougou pour m'encourager pour me dire sa fierté d'avoir un jeune frère qui ose démissionner d'un gouvernement et pour me dire aussi son engagement patriotique à soutenir dans tous les instants de kon nag Agibou bu toogee fii tey ngeen rendre ko hommage man maa ko war gën a rendre hommage Donc, monsieur le Premier ministre, merci encore une fois pour votre générosité d'esprit et votre engagement patriotique. Ndeye Maguette xam nga ne bu ma waxee Ndeye dama lay boole sa yaay Maguette xam nga dama bëgg baatu jigéen ñëpp ma teg ko ci loxo suma yaay de Maguette Dieye ndaxte yow ànd bi nga ànd ak Idriss Seck c'était vraiment da ngeen ànd ànd bu exemplaire. Eh, nga boot ko rogante ko kon nag boo ñëwee fii tey encore ñu toog ba àdduna yi dox ba Sénégal yëpp taxaw ànd ak Idriss Seck bëgg ko jàppale ah mën naa xam ne du gën a bëri yaa ko ñu lu li nga namboon ba taxaw ko Idriss Seck ba mu nar a nekk président du Sénégal yàlla na ko yàlla mottali boobu yéen te eh, Baguette Mbodj maa ngi jël nuyoo jigéen ñëpp di ko teg ndaxte lii ngeen dëgmaloon altine ngeen def ko tey àllarba xam nga ne ku leen bàyyi woon une semaine ngeen toj réew kon nag mënuma lu dul gërëm la te bu ma la gërëmee gërëm naa toutes les femmes leaders qui sont à vos côtés parce que xam naa ne ay sœurs ngeen et je pense que aussi ànd bi ngeen ànd bu nekk ànd bu rafet góor ñi aussi seen jàmm yi noonu la ñu kon nag li ci des mooy. dañoo jóg pour liggéey Sénégal dañoo jóg parce que sénégalais sonn nañu xale yi sonn nañu mag yi sonn nañu jigéen ñi sonn nañu te jigéen nag bu sonnee mooy famille bi sonn nañu kon nag bëgguma guddal wax ji ndaxte à tout honneur tout seigneur tout honneur je vais laisser au grand frère le premier ministre Hadjibou Soumaré déclarer le mot de fin de cette si belle cérémonie et je vous remercie de votre attention. Merci. waaw président Hadjibou Soumaré nga ñëw nii